sama droite maa ngi fi am ki nga xamante mooy Pokola bu équipe Falaye Balde tey ñoom ñaar laa fi dalal bëgg waxtaan ak ñoom ndax mbokk yi ñoom ñaa seen combat dafa taxaw Fouta production moo ko taxawal def ko grand combat ndax Pokola bi mu fi mujj diggante meeg daab sogeer la woon mu dóor ko mu daanu ah dafa bëgg a bëgg a bëgg a fur nii xaw dafa a jël nu mu demee noonu Fouta ñëw ne comme que derby Parcelles Pikine dafa xew temps yi faaw mu ñëw yokk ci xayma kaw moo tax tey ñoom ñaar ñu woo leen fii bëgg waxtaan ak ñoom ci làmb ji ma bàyyi ma bàyyi Pokola mu nuyoo ñu doog ñu doog a waxtaan nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay bu baax. di nuyu ñëpp. di wax jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba. waaw di nuyu ñëpp waaw. di waajal weeru. waa safar geeg màggal gi. waa di nuyu suñu mbokku Baye Fall yëpp yaa ma gën a xam. di nuyu waa Pikine waa Touba waa ñëpp daal ñu ngi leen di nuyu waa Casamance waa Guinée Bissau sama dëkku maam ñëpp maa leen nuyu. waaw. Serpent nuyu naa la. Ah, fay naa wala waa Grand Yoff. ngi fa. gannaaw ma sant yàlla. ñaan si Yeesu Kirista sant maman Marie bu sell mi. di bëggee sama gars yëpp di nuyu sama adversaire bu baax a baax a baax. di ko jaar di ko bëggee bu wér a wér ba si kanam. lan ci booy bi. waaw mais la dafa def ay preuve am ay moo tax ma jël ko. Hmm. moom waaw. waaye neex naa naka dinaa jëflanteel de. loolu du dara amoon nañu ko fi waxoon. baax da nga bëgg moom mu bokk ci ñi ko fi waxoon. ci lay bokk incha allah si kàttanu yàlla. Pokola gannaaw yow moom da nga bëgg ak Dame Sugar coow li bari sa digganteeg Talfa sa digganteeg Baba Gaga coow li bari ñu jékki-jékki gis nga jël serpent la moo duggal serpent. waaw amaana ni loolu la yàlla bëgg rek man ak moom pour ñu bëre amaana daa war a bokk si lim bi te da si bokk incha allah si weeru màggal gi maa ngi koy ñaan yàlla waaw di ko ñaan. mais yow da nga dugg ci combat bi. waaw combat la ñun dañuy làmb ñu defuñu dara liggéey ñu defuñu dara. amuñu benn xëy bu dul làmb amuñu lenn benn collectif boo xam ne dañ koy def reefuñ dara du dul làmb kase di ko ñaanal jàmm na xamal ni nag waaw man damaa nekk si yoon te damay dem. est xam nga Serpent. xam naa ko bu baax. noo ko moom daf maa war a xàllal te daf may xaar daf maa war a bàyyi ma dem. est loolu dina yomb. dina yomb xale la. serpent bi fi mu toll ndam dafa mel da koo soxla de. ma ne la amul bugguma lu yomb laa lay wax ni xale laa damaa yónni yàkkamti ma xale laa fu mu nekk moom fu mu nekk ma ma fekk ko fa. arbitre soufflé fu mu nekk ma fekk ko fa. te lu mu entraîné bu neexu lu mu entraîné. déedéet bul ma yóbbante serpent lu mu entraîné mbër loo entraîné bee boo nga xeeb ko. loo entraîné bee boo nga xeeb ko. fii moom bëre rek la dañuy bëre ba toogee na le wax dëgg yàlla dañuy bëre ba dem toogee yéen na le waaw Sefane sa waay dafa toll nii. sa waay neex muy wax rek. nee naa ko ñu ko fi waxoon ñu bari fii lañ jaar kii maa ko dàq bëre soixante dix mille fois te buñ dalantee rinki dina xam ne ñu mu doon bëre ak man bokkuñu. Mm-hmm. bu ñu dalantee Pokola di nga xam ne ñi nga jot a bëreel ñëpp sa carrière ak serment du benn. Pajo dama lay daan. lu leer laa lay wax. xaar doo dégg dama lay daan. incha allah ba bës ba. noo ko woowee léegi ne. Pajo dama lay daan. ba bës ba. ndax nga sa bopp nag. dama lay daan. lu leer laa lay wax. soxlawuma dara si la yabal dama lay daan ki la yabal ndax na la. kenn yabaluma. voilà dama lay eh. daan mu lay neex. kenn yabaluma mu lay naxari. ma dee bu arbitre prip laa ma dee may def li may def direeku dal sa kaw. Eh. su ma la jàppee billaay eh. li nga xam ne njaago mu ñuul bi la doole. xaw ma njaago lu leer laa lay wax man ay njaago déggoo ma de lamb ji la. yaa ngi dégg lamb ji. lambu njaago yi la man am naa ale am naa liis am naa Laurent. am naa Pereira am naa ñëpp. waaw cëkk ma am naa Etienne. meeci laa am naa Gomis. njaago bi nee na am naa lépp. doo ma déglu njaago bi nee na la. am naa njaago yi yëpp xanaa doo ma dégg man sama maam njaago la dafa tuub doon julit xanaa doo ma dégg am naa lépp fi wàllum jaagoog ay wàllu Guinée Bissau yooyu nañ ko génnee si làmb yi loolu boo ko si bokkee tay na sa bopp xanaa doo ma dégg amul lu may ruux si yow sëñ bi amul lu may ruux si yow eh, <laughs> amul lu may ruux si yow bu tàngal sama yaram waaye amul lu may ruux si yow déggoo ma de nga laaj ko sa mbokk njaago yi. déggoo ma de. déggoo ma de ki yepar ma ci yow bëgg mu. dégg nga ma. allez pokola ucim ngal ucim ngal ma watu ulin simba ci ma watu pala force da nga ko fi yow. man koy teg fii. yow lépp luy làmb maa la ko pale te su ma la jàppee di nga xam ne maa la dàq bëri soixante-dix mille fois. mais lu leer laa <laughs> man ba may yow. booy bu ndaw di ñëw Grand Yoff di di bëri si mbapat séer yi lan moo tax yow doo ñëw. yow da ngaa neex yow Pokola man fu ma bëri yow ma dugg fa yëpp man su ma la magee. teel micro yow man su ma la magee ma xaru yow da neex <laughs> nee nelaw guddi moo ngi lay nax kii dama kaa xam yow man dama laa xam bu baax. léegi yow noo ko xamee. kii dama nelaw guddi noo ko xamee noo ko xamee. su ma ma wax la ko. mais daan ko am dépression ko daanee ba la kii nu ma ko xamee. mais daan ko la est-ce que na. ko la est-ce que yomb ah, ah. na liggéey la rek te ñu ci. kii dama seetaan ne nga daan ko faaw nga xeex jëflante ak moom metti yàlla baax na ba booba kii déggoo li ma lépp nu mu koy daanee ñu ngi ciy liggéey incha allah si kàttanu yàlla dama koy daan kii am amul lu may maytu ci moom mhm. billaahi yàlla xam na loolu amul lu may bàyyi xel ci moom ñu may nekkal chaque jour ñu may Pokola ma bàyyi ma ko sa xel mbër na nag champion la mhm. dama koy jox dama ko koy dinaa entraîné dinaa lekk ba suur dinaa lépp lu war ci combat bi ko def mais est-ce que am mbër yoo xam te ne boo leen mënul du moom mënoo leen daan <laughs> yàlla baax na ba jour si ba jour si incha allah dafa mel ni fi mu la naa jaar da koo xam da koo da koo liggéey ba noo teg ma ne lan la wax nee na ñu muy nekkal dañ koy wax kan mu naan calculé wu ma leen. yow bàyyi ma leen sa xel la seetaan la xam naa ne ñooñu dañ laa seetaan mais yow ñu la seetaan ba nga jël avance bi ñooñu ñoo la tay voilà avance bi kenn jëloo ma ko man maa ko jëlal sama propre ñu la seetaan ñu la wax suuraaleel pokola boo dañ ma wax sama combat maag kii doomu jàmbur déglu ma dañ ma wax maag doomu jàmbur mhm. doomu jàmbur dem ba ci biir delloo avance bi mhm. ñu wax ma maag euh, nu mu tuddee mhm. dem ba ci biir delloo avance buuba ngi nii du ma bàyyi ma fenn jour bu muy ñëw sama gaale di ma ko wax ci guddi bi laaj wala laa ko toog. mais est-ce que nekkul dañ laa xeeb moo doon jël avance bi. kan maa xeeb ñooñu daw ma. kuñ ko si jox ñu dem ba si biir ñu dem ma non non nañ ko xoolal keneen. Mm-hmm. kii jaralu ma fenn. mais kon kii jàmbaar la. yaa ngi dégg moom jàmbaar la. jàmbaar la. Mm-hmm. te man moom ñu bëri daw nañ avance am. ba ñëwee ci man dam leen ne dañ ma jox xaalis ma fanaan ak moom. Ousseyn. waaw. kii waxuma la moom dama ko mën de. seen ponkal bu mag bi sax su ma ko jàppee ngaaxaloo ko. loolu waxu dof la. Zarko. ñoom ñëpp maa leen mën. loolu waxu dof la. grand ba mu daj ñoom ñëpp dama leen di daan benn benn. pokola jeex pokola bëre ba 26 dama jéggi tali. dugaat pont jéggaat tali dugaat pont pokola bëre nekkul ci yow. ñii xanaa doo ma dégg xamal moo leen. pokola bëre nekkul moo leen di nax leer laa lay wax xamal moo nax. su ma mënul bëre ñaari yoon. ñaari yoon ñaari yoon yoo xam ne nii su ma mënul bëre. Mhm. kon ñaari yoon man duñ teg premier tournoi Kayre. Mhm. Franc di Franc di ko jël Serigne Ndiaye bu Fass mii te muy lëmbe làmb ji moo ma daan demi final poids lourd. Mm-hmm. Issa may dégg xaw na yàgg boobu toll ma woon nii. Mm-hmm. Franc ba may daan par point la ma daanee man ak moom tamit demi final. Mm-hmm. barki alxuraanu karim ñoom loolu moo leen di nax dem dañoo yaakaar ay xeex rek laa mën xeex rek laa mën nax nga sa bopp. fa nga yaakaar ne xeex rek laa mën bu yaakaar xeex rek laa mën sa xeex baaxul sa ni nga xeexee baaxul nga naan xeex laa mën maa ngi koy def yàlla di ma suturaal bopp bi yëpp dama lay duma ku a nga ñuy duma maa la mën mille fois nga naan may may kii mille fois maa la mën doo nelaw guddi moo tax nga am dépression. waa baax na ma la jàppee nag di nga xam ne dinaa nelaw guddi mbala du ma nelaw. dama lay daan ah, baax na dama lay daan. de deux dama lay daan ba pare. yow doo jàpp doo daan daan la. Pokola doo jàpp sa xanaa doo ma dégg. Pokola dawoo sama yaram. yow wóor na yàlla bàyyiwuma la sax sama sama xel. dawoo sama sama yoon da si nekk nii rek. dawoo sama yaram puus ma dem. xanaa dégg ma la yow dawoo sama yaram dawoo sama yaram. da ngay puus ma dem. gis ngeen boobu da ngay puus ma dem. lu garaaw laa lay wax. c'est bon c'est bon demee ci jàmm gis ngeen ñoom ñaar laa fi dalal tey mbokki combat bi nag jot naa taxaw ba noppi. njiital Foutal production bàyyi ma dugal ko mu ñëw. gis ngeen mbokk yi gannaaw combat bi taxaw na maa ngi fi ak ki nga xamante ni mooy Foutal production euh, bëgg waxtaan ak moom ci naka la def ba taxawul combat bi ndax combat bi nag defe naa ni Pokola moom sax jotoon na jël avance bu yàgg mais adversaire moo nekkoon problème bi ma bàyyi ko bu néew abal ma micro bi euh, Foutal nuyu naa la. maa lay fay gannaaw ba ñu sante yàlla. Mm-hmm. di julli si yonent bi di ñaanal sama ñaari waajur fu ñu tëdd yal na leen gënal fu ñu jóge di nuyu staff Fouta production yëpp. Mm-hmm. nuyu sama mag bu jigéen madame sàll ak sama mag bu góor Naziru. Mm-hmm. di gërëm ñi ma àndal laay Aliou Xaasim Baye Tafa Duudu. combat bi yombul woon pour taxawal ko. ndax Pokola pour amal ko adversaire dafa jafe. Hmm. wax dëgg yàlla nit moom dangay wax dëgg rek. mais dama gis nga nga nga tëgg sa première journée. jël ko digganteem ak Dame Suger mu nekkoon combat bu neex combat bu bëri woon coow. Hmm. yàlla dogal mu am ci ndam nga ne doo ko bàyyi da nga koy woo at. daata parce que moom tamit gisoon na yenn promoteur doon ci démarché. Hmm. lu tax mu nangu la bëreel ak coow li ni mu bàyyi woon ci moom. waaw li ma woon la rek. tey jii nii mun naa ne lim may woo sax man du ma ko ko dafa may woo fu mu toll tout le temps di ma mm-hmm. nemmeeku. Mm-hmm. ma ne ah pourquoi pas ñu wutalaat ko adversaire dem waxtaan ak moom. Mm-hmm. waxtaan ak yaayam waxtaan ak ménagère am mu ne ma man aw ma problème. koo ma jox rek baax na xam nga nekk na mbër boo xamante ne lu tax muy neex a wutal adversaire du taamu. danaan man ku ñëw rek baax na. ma ne ko am problème ci lañ ci nekk nag di ko dox comme ni ko serpent waxee fu ñu ko yóbbu nag gars yi bañ. du ñu bëreeg moom du ñu bëreeg moom ngay def ba si talfa mi ngeen tudd fii sànq. Mhm. talfa man seeti naa ko ànd ak sama booy bii trois heures dañu toog ba dix-sept heures mhm. may waxtaan ak moom diggante mag Pokola mu ne ma mhm. non dugg na fii génn na fii woo leen góor a ma ne ko ah yéen a nekk stade di tëkkoonte kay pour ñu la seet see combat bi a mun a yomb mais finalement ma xam ne kon daal kii bëggul bëre quoi ma bàyyi ko fa dem xooli leneen dëgg la si laa ñëw dem dox booy bi waxtaan ak moom ba ma ko fekkee mu taxaw moom it dam ko ko wax ci sens yi mu ne ma pare naa lii la ma wax ndax ma ne man pare naa pour bëre moom neex na ba pare. Mhm. waaw di leen si gërëm ñëpp di gërëm seen i ménagère wax dëgg yàlla yombalal nañ ma ko trop. combat bi bi kañ la. le 13 novembre arène nationale. arène nationale waaw. mais euh, dugg si bi neex na xale yi ñëw nañu bëri nañu xeex nañu. Mhm. combat bi lan nga mën a lan lan nga mën a xaar ci ñaari mbër li may xaar si ñoom mooy mun naa ne làmb ji làmb amateur la. Mhm. ndax dèjà rek gis nga commencement bi ni mu demee. ku si nekk si ñoom rek commencé nga tàng fu nga nekk. te ñu ngi siy tolliwaat leneen loo xamante ne wax dëgg yàlla bu ko gars yi gisee dañ naan lii lan la mm-hmm. ndax tey jii bu gars yi xamee foo jëm rek doo yegg ndax am na ay combat xam ne ñu ngi ko doon dox doon ci waxtaan ak suñu yenn mbokku promoteurs yi ñu dégg ko dem suufu ñu jël ko mais dañuy nangu loolu expérience la bu mu ñuy jox la rek dañu ne amul problème léegi lépp lu ñuy defati dinañ ko def si sutura ba mu sotti mm-hmm. ñu génnee ko wax ko gars yi jot si daal Mm-hmm. waaw. fi mu toll lan ngay wax ñi nga xamante ni mooy sponsor parce que nag euh, promoteur bees nga dugg si ci làmb am kenn kenn jàppalewula la amuloo dafa dina xaw a métti tuuti nag. waaw métti na trop dafa métti sax ndax làmb yombul. Mm-hmm. tey jii li gars yi doon wax rek ñu si bëri dañuy tëgg seen première journée daw. Mm-hmm. bañ a ñëwaat mais ñun yàlla suturaal nañu ba dañu ne dañuy ñëwaat. sponsor yi dañ leen di woo ñu ñëw ñu jàpp si ku si mel ni am oto. dama koy woo mu jàpp si mu ñëw. dugal ci loxoom bu baax a baax am naa sam benn booy encore Seygul yi mu ngi fee marché Sandaga di commerçant bu mag booy bi tamit Seygul dama lay woo si bis bi yooyu nga ñëw dugal si sa loxo nga jàpp si di ci woo El Hadj Omar encore moom it sama parrain la woon bii passé moom laa defoon parrain wu grand combat bi mhm. mu ñëw encore mu jàpp si làmb ji di si mhm. woo ñëpp waa Grand Yoff yëpp nañ ñëw jàppale ma di si woo sama mbokku Haalpulaar yi mhm. kala bi yow mbii mee mbii maa mi rek mba doon noddu maa ngi doo doon ñelaw ma di nuyu sama waa dëkk waa Galoya di leen ci woo encore une fois ñu ñëw jàpp si ak Aboukan bergerie Galaye. Mm-hmm. Aboukan waaw bii passé moom mooy sponsorisé dama koy gërëm di ko sant. muy nit ku baax nit ku fonk réewam. Mm-hmm. nit kuy jàppale jeunesse bi. dama dem foofu toog wax ak moom mu ne ma naa si jàpp yëkkati xaalis bu bari may ma. Mm-hmm. kon kooku man aw ma fayam dama koy sant bu baax di ko gërëm waaw. Kanji moom Kanji production dama bëgg nga woo ko ndax Kanji. Mhm. dama bëgg mu dugal loxoom ci bés bii. Mhm. sponsorisé te boo ko woowee man xam naa ne dina ñëw bu fi jógee léegi danaa ko woo. Mhm. ñu waxtaan mu ñu jàpp ci bés bi. waaw dama koy woo sama grand la. Kanji muy nit ku baax. sama bis wax dëgg yàlla xeebalu ma ko. ñëw na toog muy nit ku baax Kanji dama lay woo si bis bi nga ñëw nga jàpp si. waaw da ci dugal loxoom waxee. waaw doomu nday Samb. jëy nag dama koy gërëm di ko sant. Ousseyn ak Abdoulahat Ndiaye. waaw ay nit yu baax lañu xam nga ni dañ ne boo ko jegewul rek doo ko xam. Mm-hmm. dama dem toog ak ñoom ñi may conseillé di waxtaan ak man di ma xelal ci lu bari ci lu jëm ci wàllu làmb loolu mm-hmm. yombul. bokkuñu ak ñoo xamante ne tey dañuy ñëw nga wax leen dara ñu dégg ko si yow suba ñu dem suufu la def leneen. Mm-hmm. ñun ay promoteurs yu ndaw lañu amuñu lu dul làmb si réew mi lañ dëkk comme ñëpp. jógewuñu Burkina jógewuñu Mali. kon gars yi nañuy yamale bañ a siisante bi. nañ ko bàyyi ay kii promoteur bu ndaw laa kii promoteur bu mag laa non non man gëmuma loolu man du ma promoteur bu ndaw. Hmm. licence bi may dagg moom la hmm. Gaston di dagg. licence bi may dagg moom la Luc Nicolaï di dagg. Hmm. kenn ëppalewul sa morom lenn dagguñu licence su 3 ñun ñu dagg licence su millions. ñoo bokk lu ñuy dagg kon nañuy yemale. keroog maa ngi dégg gaayan boobu noonu nu mu tuddati sax Assane Ndiaye Bawal. naan non promoteurs yu ndaw yi waru ñu leen jox sam ak dimanche pour lan loolu xanaa ñun dëkkuñu si dëkk bi ba waruñu ñu jox samedi ak dimanche ñu tëgg moom mooy kan. caution bu ñuy joxe. ñoom moom la ñuy joxe dañoo joxe ñun lu ñu joxewul. Hmm. te CNG li mu wax lenn la bind leen lettre ngeen indi indaale seen caution boo leen ko defee ku njëkk a déposé moom la ñuy jox date. Hmm. mais ci loolu la ñuy dox. yow nga ñëw taxaw ne non non bu ñuy laaj sax promoteur yu mag yi waruñu leen ko laaj dañ leen war a bàyyi ñoom bu ñu nee dañuy tëgg ñu tëgg parce que xaalis waru fa tëdd yow yaa ngi xool sa intérêt. grand dama lay conseil beneen yoon bul waxee noonu booy xeex da ngay xeexal làmb xeexal promoteur yëpp. Hmm. loolu mooy yoon. booy xeex dangay ngay xeexal làmb def ni jëy di def boo ñëwee nga mm. défendre promoteur yi wax li nga war a wax ne lii buñ ko defee dinañu jëmale kanam moo gën ngeen di xool seen i intérêt personnel mm-hmm. di xool yéen li leen arrange rek di ñu jéem a éliminer loolu du am gis nga fii luy sa wërsëg boo ko naree lekk ala kulli aali di nga ko lekk kenn mënu si dara mm-hmm. am yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla yàllaay buur da ngeen di yemale fii promoteur bu ndaw amu fi mm-hmm. li ngeen di dagg la ñuy dagg caution bi ngeen joxe la ñuy joxe defoo si làmb lu fi nit ñi deful dangaa dañ laa jàppale ba nga toll fii Mm. kon ñu nit bu ñu ñëwee da ñoo war a mun a jàppale xelal ñu won ñu yoon mais ngeen taxaw yéen ñetti kese di wax lu leen neex foo leen ko teg yow ak fàllu Ndiaye ak Kajoor boobu laay waxal dangeen di yamale ñëpp ngeen tàllal ñëpp loxo mm. boo leen bëggee làmb ji dox bu leen ko jëf rek seen i intérêt personnel wala seen yëfu bopp mm-hmm. làmb doxeewul noonu làmb doxeewul noonu da ngeen di yaatal bàyyi gars yëpp dugg si luy soo wërsëg nga lekk ko nga dem sa yoon mais ñëw rek di jël aaki moo naan nañ leen bàyyi yéen kese ngeen di tëgg pour lan mm-hmm. ñun duñ ko nangul ñeneen ñi sax waxantuma la ak yéen di ñaanal suñu papa Petit Mbaye. Mhm. waaw Aline Petit Mbaye nit ku baax. Mhm. dafa war a ñibbisi ndax dafa bokk si làmb. dëgg la léegi Nicolas suñu papa jooju tamit ñu ngi koy xaar. Mhm. ndax tey ñooñu mun naa ne fi ñu yóbbu làmb dafa sori. dëgg kon amuñu seen fay dañ leen di ñaanal jàmm ñu mun a ñëwaat ba jàppalewaat làmb ndax ñu ñëpp bu ñu ñëwee. ñu ndam la. loolu moo gën a rafet nit bu tollee si ay tolof tolof da nga koy ñaanal yàlla yàlla indiwaat ko moo gën nga naan non bu mu ñëw man naa toog man kese rek mun a du noonu. yàlla gëmul nelawul yal nañu yàlla defal jàmm ñun ñëpp yàlla yóbbu ñu seeg jàmm le 13 ah, novembre. fi may fi may tëjee ak yow mooy gannaaw bi mooy sa sa première sa première journée ci ci bés bi ci ci mhm. saison bi. Mhm. fii ngay yem ñun wala des na yeneen yoo xam te yaa ngi koy waajaat. yow waa wasaare. Mhm. yéen samay am di jàmm ngeen samay lépp ngeen. dañuy liggéey bu soobee yàlla. incha allah lii daf ñoo bett sax. mais ñu ngi doon xaar lu gën a rëy lii. te dina am. incha allah combat bi. dinañ ko jaay jaay jaay ba ñëpp xam ko. Mhm. waaw dañuy liggéey ñu ak yéen Ouzin. incha allah soobee yàlla waaw allah. ñu bàyyi ñaari mbéy ñu yeggali gannaaw ñoom fi mu toll nii tàngoon nañ sax xanaa ñoo ngi bëgg sedd ñu bàyyi leen ñoom ñaar ñoom lan ngay tàggatoo ak sa gars yi. waaw di maat ñëpp encore une fois comme li ma wax sànq rek di woo sama mbokk Haalpulaar yi yëpp. Mhm. kala biyo mbi mi mbi maami rek mbaɗo nodduma kala to ɓii pullo woni mhm. kala biyo mbi mi mbi maami rek aɗa nodda e national di gërëm sama waa koñ Ousseyn. Mm-hmm. ay booy ndaw laay àndal ñi may jàppale ay xale. ku ci mel ni Souleymane Papi Abu Tony. Mm. booy yu ndaw dañ may jàppale Pape lu ne image yi bu ma paree fii booy ñooy dugal ñooy bind ñooy def lépp ñooñu aw ma seen fay. di gërëm sama gannaaw koñ yëpp. Mm-hmm. di gërëmaat Laay Cissé. Mm-hmm. di gërëm Aliou di gërëm Xaasim di gërëm Baye Dafa Duudu. si mm-hmm. Zidane ñii dem leen di gërëm di leen sant Ousseyn man ay xale rek laay àndal. boo xoolee loolu sax gis ko. dëgg la man boo yi rek laay jéemal ñoom laa mën a defanteel. Mm-hmm. ñun amuñu lu dul làmb dañoo yëkkati suñu alal dugg si bu ñu neexoon dem def si leneen. Mm-hmm. dem tukki mbala dem nekk si leneen. mais dañoo ñëw pour jàppale làmb kon bu ñu ñëwee pour jàppale làmb dañoo war a jàppale. di si woo waa Grand Yoff encore na si ñëpp ñëw jàpp. yaatalaat affaire yi mbëri tamit man li mu leen di conseillé mooy. nañuy bàyyi di déglu seen i ménagères yi de trop tey am na si ñenn ménagères yi nga xam ne ñoo nekk si làmb ñoo yàq làmb ci ñenn ñi si ménagères yi laa la wax. Mhm. yaataluñu li ñuy def dafa ñaaw mais loolu foog ñu def émission ñu toog ñu waxtaanee ko mu gën a yaatu. day am non loolu faaw ñu yóbbu xam naa ne ku la dégg ni ngay waxee am na lu bari loo xam te bëgg nga ko développé. billaay dama am lu bari lu ma métti ci làmb lu ma war a mais damay sant waa CNG di leen gërëm bu baax. Mhm. waaw ndax xamuñu promoteur bu ndaw xamuñu promoteur bu mag boo respecté règlement bi rek boo ñëwee la nga bëgg rek dinañ la ko defal di leen nuyu ñoom ñëpp di leen ne seen liggéey rafet na macha allah. Mm-hmm. di nuyu encore une fois Abdoulahat Ndiaye bu baax. Mm-hmm. xam nga nit boo ko jegewul rek xamoo ko. Mm-hmm. di nuyu Dieye production. di ko ñaanal yàlla. wax dëgg yàlla nit bu baax. waaw maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. waaw sama sëriñ ñoo kooku appareil la naa ko tudd quoi mais du doon léegi. si Malick di leen ne ñu ngi waaj gàmmu di waaj màggal incha allah. yal nañu si yàlla yóbbu ak jàmm xaar ñu tiwaan bu soobee yàlla bu ñu ñëwee nga yokk ñaan yi. maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam. di nuyu Thierno Abdourahmane Bari Bogol. Mm-hmm. waaw sama papa ju baax Ouzin. ndax bu ma tollee fii yàlla ak moom. daf may ñaanal guddi ak bëccëg di nuyu Serif Sidi Ahmed bu baax encore une fois ñii dañ may ñaanal ak Thierno Abdou Aziz baax mu ngi fee ca Fass Ngom dañoo sonn ci man di ma ñaanal di ma wax lu nekk ak ñi may ñaanal di ma woo téléphone guddi ak bëccëg mm-hmm. di nuyu ñi nga xam ne caabi da leen féete ginnaaw mm-hmm. waa cent mètres campénal ñëpp mm-hmm. dañuy bàyyi li ñuy def yëpp dem génnee seen i mille francs ñaar téeméer jënd crédit woo ma di ma ñaanal di leen nañ ma xaar maa ngi fay waaj événement bu rëy incha allah cent ak campénal di leen nuyu yéen ñëpp gars yi maa ngi leen di bëggee yàlla nañ si yàlla yóbbu ak jaamu wasalaam rafet gis ngeen mbokk yi kooku mooy promoteur bi Fouta gis nañ am na gis nañ ambition yi nga xamante ne moom am ci xale yi te moo ngi koy commencé di ko fësal ndànk-ndànk Pokola lan ngay lan lan lan nga mën a lan lan ngay xaar ci bés bi lan ngay xaar ci bés bi jour bi moom maanaam di si woo waa Pikine rek waa Pikine maa ngi sa combat baax a baax gis nañ ni mobilisé woo ñëw jàppale ci combat bii lay gën a raw bii lay gën a raw barki alxuraan karim bii lay gën a raw maa ngi woo ñëpp waaw combat bi waa bopp coor ñoo ko moom. waaw di woo waa mafia raas waa kàkku waaw yaa ma gën a xam. lan ngay wax promoteur bi ci combat bi. bi moom maanaam wax dëgg yàlla xam nañu bu baax xam nañu moo tax bu ñu xamul woon bu ñu ko fekkoon mobilisé wu ñu woon. Mhm. wala kii bi amaana duñu sawar a tëggal ñu. waaw nag waaw di sant yàlla nag bu wér a wér. Mhm. waaw di si woo waa Pikine bu baax a baax a baax a baax. moom baal ma ñëw tàggoo tàggoo guñ après li nga woote euh, Serpent lan lan lan la promoteur mën a xaar ci yow ci mobilisation ci wàllum jaay combat bi. waaw combat bi dañ ko jaay. Euh, parce que mhm. waa Grand Yoff moom ñu ngi waaj combat bu baax a baax. Mhm. wax dëgg yàlla ñu ngi koy waaj bu baax. waaw di woo tamit waa Sanzala bi Obin Joobi waa Ajana waa Koñu Njaago yaa ngi dégg. di woo sama boy Grand Dakar yi waa mafia sans loi bi ñoom fidèle ñu ngi leen di woo si combat bu baax. Mhm. yaa ngi di di woo ñëpp daal combat bi ñuy ngi woo ñëpp grand yi ñu kenn di woo ñëpp. waa parcelle wax sa waay. sa na waaj de comme ni mu ko wax na waaj bu baax xam ne làmb lamb mhm. bu mu xeeb lamb bi teel micro bi bu baax xam ne lamb-lamb. Mhm. mu xeeb lamb bi. ay moromam yëpp fii lañ jaaroon. yaa ngi ñaata combat. maa ngi cinq combat. ñaata victoire cinq victoire. yaa ngi dégg bu mu xeeb làmb ji na xam ne làmb la am. Mhm. bu demee képp ku ko ne amoo komba da wax lu ko neex mbala mu mbala fu mu tëdd neex mbala muy lekk-lekk bu neex. am na komba combat la am na combat la am na. man du ma ñooñu ñooñu du ñu man dama ne kii cinq combat la am ma dégg. maa ngi lay dégg bu ma ñam ñooñu du ma te ñooñu du ñu man man dem naa ardo demaat ardo ñam naa defet jël naa ko. bu ci nekk xam nga li muy saf. bu ci nekk xam naa metti métti bu muy saf. dem Ardo demaat Ardo. te nag di nga daan encaissé coup encaissé waat coup. Mhm. xam defet ñaari yoon. te bi nga daanee da nga ne génn góob bi paasal seize fa nga ko teg. waaye xanaa doo ko dégg kii dama koy géem ba géemaale ñeneen ñi nekk ñeekaale si ginnaawam. dama koy joob moom ba joobaale ñeneen yi nekkaat si ginnaaw moom xam na loolu sax. yow mënoo joob kenn li ngay war ngay wax lu la neex. nee naa sama ma ne yow lamb milieu la. dama lay géem lamb la. sa waay dof dof lii la. di woon ak sama booy waa zéro heure parcelle. nga ne la bàyyi ma kenn nga ne lamb la la lamb la. lamb milieu waaw. te a dugal lamb yi lamb milieu. te nga bañ a dugal lamb milieu. lamb la mu lay neex milieu lay fay bañ gaa yàqal la sa liggéey. milieu lay fay déggoo li ma sama liggéey. milieu moo lay fay yow man milieu fay ma mbindeef laa la mënuma yàqal sama liggéey. te nga bañ a dugal si làmb ji ah, làmb millier. làmb millier la Pokola loo woote benn maa la mbokk soixante dix mille fois. lu leer laa la man yàllaay sama la dindi que man ni ma la xamee am nga adversaire lu leer nga bëre ba xam ne bëre nga. Ousseyn lu gaaw laa lay xaaral ma xamal leen benn affaire de. xaaral ma leen benn affaire de. man wax ju bëri sax yaree ma ko na wax na def lépp. kii koo xool xam na ay yaxam ak samay yax bokkul. voilà kii koo xool xam ne fuuf yaxam ak samay yax bokkul a doon xale fuuf. kii yàlla xam ne maa la gën a ñemee coono la fuuf. sama yaram coono bu mu naree bu mu mun sa yaram kii. lu leer laa la wax mais Ousseyn barki kii bu ñu àndoon entraînement le 13 novembre. lu leer laa la wax le 13 novembre. le 13 novembre. le treize novembre. billaay wallaay taalaahi at bi sama loxo lay yëkkati. baax na ba boo xam ne alxuraan dafa ndànk làmb ji ñëwagul may ma ñëw làmb taxaw ne abit sa loxo lay yëkkati. foo teg ndam. maa ngi koy ñaan si yàlla si weeru màggal gii kii arbitre sama loxo lay yëkkati kii xanaa doo ma dégg ragalu ma ko si dara. déggoo li ma ragalu ko si dara set eh. boo ko laa eh, eh. asuma laa man boo ma jekkoo rey ma mais dama lay daan. asuma laa man laa la wax. amu lu may moyu ci yow. boo ma jekkoo rey ma mais dama lay daan amul ci yow. xam lu ma si gën a metti xam lu ma ma gën a metti metti metti metti gars yi nii dañ may gis nii nii ne ay signature di wax de mais ba arbitre bu stufee nii ba yalmin bi takk ba takk bay kër Fallaye barki Seydina Muhammad dooma ñemee wax ji mun ngay wax nii nag di wax nii rek xoolaa caméra yi wër la nii ngay wax man ma takk samay ma takk barki mu Muhammad Pokola ma gisuma ku may arrière tànk ginnaaw. gisuma billaay lu leer laa lay wax. seulement yow boo taxawee. Pokola gisuma ku may arrière tànk yow boo taxawee. yow sa loxo bu laa yow sa loxo bu jógee balaa ngay comprendre yaa ngi si suuf. yow déggoo ma de. garaaw laa lay wax. yow boo taxawee sa loxo bu jógee. boo taxawee lamb ji lamb ji du def une une minute trente secondes une minute trente secondes du ko def. may naa ko may naa ko kii maanaam may naa ko une minute trente secondes may naa ko si loolu nga may may ci laa lay daan. def ko deux minutes. def ma ko une minute. déggoo lim la. <laughs> une minute. laa koy daan. une minute dama koy may une minute trente secondes. déggoo lim la si minute yooyu ngay tudd si minute yooyu muy tudd. une minute trente secondes laa koy may. kii bu déclenché bu jógee balaa muy xalaat mu ngi si suuf dañ koy for. déggoo ma de. est yaa ngi waaj xeex bi parce que man moom xam naa ne bu ko waa Grand Yoff yebeeg bu la ko yóbbul ko wax di nga xeex. déggoo lim loolu maa ngi koy xaar hmm. loolu maa ngi koy wallaay wallaay taala loolu maa ngi koy xaar ci Pokola. nii nii nii nii. Ousseyn. Ah. su ma bëriwul ak may a ñeme. Ah, laa man man mii lamb yow loolu man nga ko war a wax. su ma bëriwul. Ousseyn man dama neex a man man dama neex dama neex a tokk dama neex. mais wallaahi bu arbitre simbi. Ousseyn ma yëkkat sama loxo sa di ma bàyyi su may yab mhm. su may yab xam nga ñan ñoo may yab. xam nga ñan ñoo may yab. waa waa grand yoo fi nekk Karu Turbine di ma woo naan ma Pokola hee eh. di ma jaay perek ma xam ne loolu làmb la ñoo ñoo may yab mais kii laa lay wax nii bu arbitre bi nee prip xam nga Malick moo koy arbitre xaw bu arbitre nee prip ma fekk la duma la bu arbitre nee prip. kii 30 hmm. secondes laa ko may bu sa si kawam xooli leneen. ma wax loolu jaay ko perek jaay ko sa doom ngay jaay perek ma munoo ma jaay perek. ma munoo ma jaay perek yow bu arbitre nee. mais dafa mel ni ñëw sama kaw ma dafa mel ni da ma daan la bu rëy laa la wax yow mbër dal jàmm rek. nga dal lan mbër dal jàmm laa. koy dalloo jàmm man yow nga may dalloo jàmm yow laay dalloo man ngay dalloo jàmm yow bu suur baa ngay xam dal bii dal baa dal ba sa. lamb bi du fii lamb bu jour ba le treize incha allah. sa waay à domicile la loolu dara yàgg naa fa bëree loolu du dara. ba nga fay bëree ak couleur yi nga doon bëree bokkul de. dama lay teel a wax de. baax li nga doon bëree ak couleur yi nga bëree bokkul. dama lay man waa dëkk bi dañ maa yónni yàkkamti ma. xam nga moom fa hmm. koy daan daan bu gaaw ko estade. déggoo ma egg këram ma de. man ma ñibbi eh. ak samay man maa dëkk man maa dëkk. ñoo ngi may signaler man waa dëkk bi. ñoo ngi may waa tamit maa ngi bëggee tamit waa bi fa nekk wax dëgg yàlla barki démb dañ ma woo tuuti. yaa ngi waa Samet dañ ma woo tamit ñoom mafia bi fa nekk wax dëgg yàlla lamb bi daa mel ni fa la amee. waaw. daa mel ni lamb bi fa la amee quoi comprendre ñuy ñoom daanaka ñoom instant yi si lañ nekk nii commentaire bi defal ni defal ni ma ne nag yàlla baax na mooy loolu waa di biggee ñu fa nekk na di lañ ñaanal ñoomit suñu borom génnee si lu gaaw ñu nekk hôpital suñu borom fëgg seen bopp ba ñu mun a dellu seen kër ñi caabi fetee ginnaaw suñu borom génnee leen fa ñi xare àjjana suñu borom ja yóbbu leen àjjana firdawsi waaw kon mhm. waaw di bëggee ñëpp a ah, di bëggee tam sama doomu nday ma àndal muy Mbambulaan moom laa àndal di bëggee waa Grand Yoff ñëpp waaw waa Mafia sans loi bi tamit Grand Dakar Biscuiterie ñaari tali maa leen di woo si combat bi ngeen ñëw waa Parcelles waa zéro heure tamit ñu waajal bu baax waa Grand Médine waa Grand ñëpp waa Koñ Jaago loo waaj doyul Opine Dio Ajana Sanzela waa Rio tamit ñu waaj combat bi bu baax a baax xam ne seen koñ baa la yaa ngi dégg gaa yëpp waa grand bàyyi ma kenn zone 7B yi ñëpp ñu waaj ko bu baax ñu ñëw ànd ak man gunge ma darma ma dem jàpp ko laa daan ko ñu ñibbisiwaat dem grand feete ko incha waaw loo waaj doyul nag mbër. maa ngi nuyu waa Campe daal ku si ne sama nijaay Paate Balde ñu nuyu ñoom Amaro ñoom Jibi Ndaama maa ngi nuyu ñoom ñëpp ñoom Mamadou Mbaye Garmi. du nuyu ñëpp waa Pikine yi fa nekk. du nuyu waa Samet gaa yëpp di nuyu ñëpp daal. Mhm. waaw di nuyu waa Touba bu baax a baax. di leen wax képp koo xam ne nii képp murit bu nekk si àdduna si màggal gi lépp loo siy waaj. Mm-hmm. muy wàllu bernek lépp yàlla na la ko yàlla yombalal. Mm-hmm. si màggal gi. képp Baay Faal boo xam ne nii tamit sa sasoo nga dara. wax leen nag ñu na. waaw waaw gars yi tamit nañu wàññi soble bi soble bi seer na ndax bis ndax màggal gi. soos la ay tuve la. waa ndax borom ndax waaw Serigne Touba moo ko wax ne nee na bul xeeb ginaar ba naan matul a rey. Mm-hmm. bul naw gileem ba naan ëpp naa rey. kon képp koo xam ne sa collectif mu ngi si màggal même bu fekkee sax di sase ndox la da ko bëgg a yóbbu kër fi ngay dal yàlla na la ko yàlla defaral si barki sëñ Fallou waaw di nuyu maa Ibrahima Mbacke bu wér a wér a wér a wér mhm. maa ngi koy nuyu bu baax maam Xaadim Mbacke maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu njabootu sëñ Fallou gi yëpp yëpp yëpp njabootu sëñ Touba gi yëpp maa leen nuyu mhm. di nuyu ñëpp barki sëñ Fallou Mbacke di nuyu ñëpp di wax ne màggal gi daal képp koo xam ne daal mbébét nga si muy nag ak lépp loo xam ne daal Baay Faal boo xam ne daal lépp nga bëgg a yóbbu sa dal yàlla na la ko yàlla defaral yombal la ko si barki Seyd si barki Seydina Muhammad maa ngi nuyu ñëpp di ko ñaanal nag jàmm. ah di la ko delloo bu baax a baax ñaanal jàmm bari bëri bari jàmm boo xamee ni dina mën a entraîner normal wala waa Pikine bu baax man waa Pikine xamal moo tax man waa Pikine man waa Pikine man su may bëree ñoom dañuy dem mm-hmm. man su may waa Pikine man awma problème boobu ak nante Pikine yi mm-hmm. man awma problème ak nante Pikine awma problème waa kenn ñëpp fa ñëpp laa seqal jàmm Pikine awma fa kenn problème ñëpp laa seqal jàmm nante yi ama bëggal seen bopp mhm. ñoo yëgër seen xaalis di ma jox ñoo yëgër seen alal di ma jox xanaa déggoo mën a liggéeyu ma xëyu ma gontu ma mhm. ñoo may defal lépp di ko ñaanal jàmm nag mu entraîné si jàmm andi état andi état làmb ji neex ñu bëre xeex waaw yàlla may ma ndam ma gunge ko ba Odeka wala ma puus ko ba croisement Cambérène <laughs> na ko mbër demal. jëlaatal nga génn génn bu gaaw mbër. sa waay xanaa li ma ñaanal bu baax. a baax a baax a xam ne tamit am na ko am nga combat bu baax. waa dina tamit promoteur bi dañ koy sant quoi. Mm. comprendre nga parce que bi xale bu ndaw tëggaay lamb xale. tamit dafa war a jàpp dañ war a jàppale bu baax. ci mm-hmm. côté mobilisation bi ñu mobiliser waa Grand F maa leen di wax loo leen mun a mobiliser si combat bi doyul. loo leen mën a mobiliser waa daaru tamit ñu ngi leen di woo bu baax a baax a baax ngeen mobiliser bu baax ñu ñëw feesal esaat ba mu fees dell ngeen yoole ci kaw ma gësëm suuf jàpp sa waay daan ko vite fait ñu ñibbiwaat. waaw maa ngi nuyu nag waaw waa Pàcc Lambaay bu baax a baax a baax. waaw maa ngi nuyu waa Pàcc Lambaay bu baax a baax a baax a baax nuyu bool bool yëpp képp ku bool bool bu nekk Sandaga yaa a xam. Peter Sène maa ngi nuyu bool boolu yëpp di nuyu waa Pàcc Lambaay bu wér a wér di nuyu ñëpp maanaam maa ngi nuyu daal waa àdduna waa diaspora bi yaa ma gën a xam. waa Sokone nag maa ngi koy wax combat bi combat am la ko waa doomu nday ak Mohamed waa Kaaw ba maa nuyu ñoom ñëpp ñu xam ne seen combat bi seen combat la yaa ma gën a xam di nuyu ñu ma fi àndal ku si mel ni Fente Timara Pikine Dakar Aliou Ba Aliou Dange Abdou Diouf maa ngi nuyu ñëpp di nuyu ñëpp daal di ko xamal ni daal moom na nekk si jàmm man moom maa damay am ñaan ñu may woo rek. ku si mel ni ma ndaw ak Moussa Fall wax dëgg yàlla ñoom samay patron lañ. Hmm. te bëgg naa ñu jàpp ci combat bu baax a baax a baax. parce que combat bi combat bu grand soxla la. Hmm. combat bu ma soxla sama carrière. Hmm. wax dëgg yàlla dina nañ si jàpp bu baax lu ñu ci mën a jàpp doyul surtout bii nag autorité yi jàpp ci ñu jàpp ci bu baax ay ñoom bébé say. yaa ngi dégg ñoom bébé say ñoom ñëpp ñu jàpp ci tamit jàpp ci combat bi. parce que poxolaar te incha allah dama koy daan si kàttanu yàlla. lépp lu ñu bëgg ci combat bi maa ngi ci te lépp lu may may ndam maa ngi ci suba ba ngoon te incha allah si kàttanu yàlla sa waaye bu ñu jàppante dina xam ne ñi mu doon bëri ak serpent du doon benn. incha allah gis ngeen mbokk yi noonu lay demee ci Wassare Lamb ci jàmmaarloo dina jox dig daje beneen yoon ak yeneen ba jaa ngeen jëf.